maa ci jàmm bu baax. yow xadara bi moo la indi fii. waaw xadara bi moom fi indi maa ngi jóge ba Médina rue 37 angle 26 fa laa bayee ko ñëw fi pour xadaratul jumaa wi bu Fata Sarr bi al amin moo ko doon def chaque année yàlla dogal tamit bu mu demee ba làqu après ñu koy continuer di ko def rakkam ju baax ji mooy Pape Malick Sy moo koy def fu mu toll nii man Medina laa jógee ñëw fii pour xadaratul jumaa bi. lan nga lan nga gis si xadara bi. waaw xadara bi moom macha allah lii rafet na lool taaru na yow na sell na neex naa xool xam nga ne ku gis stade bi nga xam ne lu dul dëgg rek mooy dëgg lu li ñu doon def saay ñaata at ñu ngi koy def at bu jot nit ñi di gën a bari di gën a fees ak taaru gi nu mu rafetee nga xam ne dëgg rek mooy dëgg macha allah xadara bi rafet na bari na nit macha allah daal man mënuma wax ci mbooloo nga jégal ma ko ah. ñaan bu baax waaw ba maa ngi ñaan bu baax maa ngi ñaan bu baax yàlla yàlla ya nangu amin amin amin ya rabbal alamin gasata lan macha allah rafet nañ ko daal rafet na trop taaru nu yiw nu man chaque année dama koy ñëw ren nag dama xaw a retard moo tax saa yi ma ñëw gis nga fii ma taxaw nii ma taxaw ko waaw ah, rafet na jaajëf kañ yaa ngi commencé di ñëw si xadara bi ah, mat na ñeenti at maa ngi ñëw ci xadara bi waaw gis nga si moo tax nga si trop trop trop trop naa rëy laa ci gis waaw waaw yow nga siy waaw moo tax ma ciy ñëw. Eh, lan ngay wax jeunes yi comme ça si ñu gën a nga ñaax leen ci lii nii ci religion bi ak xadara yi tamit. xanaa ñu jàpp rek bañ a bàyyi. jeunes yi moom maa ngi leen di ñaax ñu doog bokk ci daayira yi di ñëw xadara jël werd te di ko jëfe buñ ko defee duñ ko réccu ñun ñi ko def de gis nañ ci njariñ waaw di sant rek sëñ Babacar yal na yàlla fayal ñu ko. maa fi. maa ngi si jàmm. nan nga tudd. Fatou laa tudd. yow fan nga jógee pour ñëw si xadara bi. Thiaroye laa jógee. Thiaroye depuis ban heure yaa ngi fi. depuis ay 17 yooyu rek maa ngi fi. da ngaa dama xaw a tardé tuuti nag si bunt bi. dugub bi métti woon. métti na kay buuxante bi moom mooy loolu métti na torop. nan nga gis ni xadara bi mi ngi la koy apporter. bon mi ngi may apporter lu bari parce que mi lay jàngal déjà ni ñuy xadarawee. bon ak waxtaan beeg orientation yi saasi kii yi di def sëriñ di def tamit daf lay jàngal lu bëri ci la yees sa diine affaire yooyu noonu. yow gis nga si njariñ nga gis bu baax baax. at di si ñëw. man ren lay def 3 ans maa ngi ñëw. na yokk. ça va. ça va bien merci. yaa ngi si jàmm. bu baax. yow xadara bi moo la indi fii tey. waaw xadara bi moo fi indi fan nga pour bi. Ah, ba bi. depuis est-ce heure yaa ngi fii euh, depuis midi ma ici. midi waaw. photo. ah. amoo photo. amoo fu ma dama ñëw fekk mu midi laa fi ñëw mais dama ñëw de ma pour ma dugg si problème là xatu tellement xat bi moom ma ngi ñaan autorité beneen yoon ñu ko yóbbu peut-être fu gën a yaatu fii ndax ni parce que il gis nga li nekk si biti. waaw buñ ko peut-être amitié ñu ñu je un ba am mu set mais fii moom kenn xajatul fii moom wax dëgg yàlla. mais xadara bi yow gis nga si njariñ. bu eh, bëri bu bëri. bés boo xëyee Sénégal déggoo laa ilaaha illallaah laa suba ba ngoon jot xam ni àdduna tukki na waaw xadara bi njëriñ kesal njëriñ nen la. waaw looloo tax ma ñëw ma bàyyi lépp. waaw jaajëf waaw incha allah kattan. am na solo depuis ñaata at yaa ngi fi. waaw maa ngi ñaanal ñëpp fas yéene ñëpp ñaan yàlla yàlla nangu yàlla na Sénégal jàmm yàq Sénégal wala ñaan yàlla bu baax a baax. ñu ngi lay jaajëfal. waaw kay maa ngi leen jërëjëf. maa ngi fi rek alhamdulilah. yaa ngi si jàmm na bu fa. ñu ñëw waa Koskas bu Mbour. yéen a yor wàllum organisation. waaw waa Koskas bu Mbour bokk nañ ci organisation bi. ndax it euh, sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine ku ne xam na ko relation ak waa Mbour muy relation boo xam ne tabaarakallaahu ñëpp seede ko te it Coskas di mbir moo xam ne mbiru sëriñ Babacar Sy la mbiru sëriñ Babacar Sy nag ndax moom moo tànnoon baasitu te baasitu dafa yaatu moo tax mbiram moom yamul Sénégal yamul Afrique moom partout dans le monde la moom sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu moo tax ñun ñu ngi jóge ba Mbour ñëw bokk ci organisation bi pour lu jagal xadaratul juma bi. depuis waaw organisation bi nag yàgg na presque mat na trois mois ñu nekk ci réunion yi wàccaay bi di xool mbir mi nu muy jagee booba léegi ñu ñëw ba yàlla def tey ji bis baa ngi nii ñoo ngi nii muy zikrul ilaahi bi nga dégg ni mbokk yi di tudd haylala bi tabaarakallah muy lu am am solo ñu nekkoon ci réunion yi booba léegi. di ñaan yàlla rek commencé ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin ndax li ci des bëreetul kon comme que commencé nañ ko rek yàlla nañ ci génn ci alhamdulilah rabil alamin sëriñ bi ak seegul waaye moom la ñuy teeru nii ndax suñu suñu sabab mi ngi woon ci biir waaye sabab bi ñu génne mooy sëriñ bi lañ doon xaar moo tax ñu ñu génn ñu teg ñu fii ndax Coskas ku ne xam ne ci ndigal lay woy suñ la ne woon taxawal fii yenn ci naaj bi te xoolawuñ la dara sax loolu rek ngay def ndax ci ndigal lañ ñu xamee ñun waa Coskas lay jaajëf. waaw yow it euh, ñu ngi kontaan am contentement bu baax a baax a baax ndax lii rafet na lool bu ko defee rek yàlla na yàlla boole ñun ñëpp yiw yi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jisi taxaroon wa ku fi tachar Al Amin moo ñu boole woon ak Fata Sarr pour ñu organiser xadara bii boobaak nëga ni bu jotee depuis un mois ñu ngi fi pour préparer xadara bi fa tabaarakallaahu organiser ko ba ñëpp kenn ku ci am satisfaction ci ni nga ko bëggee ci wàllu protocole kenn ku ne toog parce que kenn ku ne bàyyi nga tey sa fa nga nekk ñëw ngir yàlla ak xadar jumaa bi moo tax ñu bëgg lépp tegu ci yoon ci cadre bi nga xamante ni moom lañ ko waxee waxtaane woon ci réunion yi. loolu tax ngeen nekk ñu ne fii di xaar sëriñ bi fi ne fi mu agsi bu duggee rek lépp arrêté wu incha allahu taala. ñun ñoo amee protocole sëriñ bi. ñoo amee seen protocole sëriñ bi man la seen mbokk soxna May Malamine waa parce que xatara bi ñoo ko defee woon si ndigalu sëriñ Abdou Aziz Al Amine te ku ne xam na ñun suñu dund Al la suñu lépp Al Amine la dem nañu ba di ko dàkkantale suñu tur yi kon loolu ma indi woon tey macha allah te dañu ne tey jotaay doomu Tidiane la ñu wax kon képp kuy doomu Tidiane dafa war a teew si bis bi ñëw tamit jàpp si liggéey bi bokk si organisation bi ah ñu dañoo ñëw nag si turu mouvement élément Al Amine soppee sëñ Abdou ñu ne mouvement élément Al Amine fan ngeen jóge ñuy jóge yëmbal ñuy jóge géewaay ñuy jóge parcelle bokkuñu fi ñu jóge mais ñu ngi partout fépp si àdduna voilà moo leen fi si organisation bi ngeen. waaw fa nekk bëgg jàpp si liggéey bi rek ndax loo xamante ni mission sëñ Abdou moo ko taxawaloon kon ñun ay njabootam war nañoo doxal si tànk yooyu macha allah ba def li mu doon def suñ ko mënulee sax ñu jéem. depuis ban heure yéen ba léegi ñëw fi démb dañ fee ñëwoon nekk fi ba yenn heure yi ñu ñëwaat suba ba léegi ñëw fi lépp si mission bi rek service bi. lan nga gis si xadara. xadara bi macha allah macha allah dama naan moom chaque année rek dañuy gën a ëpp loxo mbooloo mi dem na ba fees ba kenn xajatu fi xadara moom macha allah yonente bi wàcc na fi Cheikhuna Tidiane wàcc na fi kon dañuy ñaan yàlla rek yiw yiw kese la moom xam naa ko macha allah waaye yiw moom yàlla na law ba faw rek macha allah tasaar si dëkk bi. depuis depuis bi mu commencé ba tey yaa ngi fii ñëw. waaw ba mu commencé ba léegi suba ba léegi ñëw fi. suba ba léegi at yi muy am yëpp ba mu dalee am ba léegi deuxième bii mooy deuxième édition bi ma teew nag yi fi amoon yëpp jotuma teew mais bii mooy sama deuxième édition. yow lan nga tudd. waaw asalaamaaleykum rahmatullahi wa taala wa baraka maa ngi leen di leen ziare ma la soxna Abi Baksu waaw yéen a bokk yéen ay waa ñan. ñu ñooy waa élément al amin. élément al amin. sëriñ Abdou Aziz al amin. fan nga jógee pour ñëw fi. waaw man maa ngi jóge fii tu géejuwaay. waa yéen a bokk yéen a yor wàllum organisation bi. waaw ñoo ñu ñëw yore wàllum organisation bi. ban njàngan nga am si xadara bi. ah kontaan si rek macha allah bis bi doon na lu ma neex te à chaque fois doon na ci man loo xam lu ma yàqamti. macha allah wax dëgg affaire bi doon na parce que man dama bëgg serigne Abdou Aziz Al Amin macha allah wax dëgg yàlla kontaan naa ci torop macha allah man nak ma ngi doga bok ci lu mel dal ma ngi doga bok ci lu mel mais contane na ci torop jëlé na ci lo xamné lu bari dal macha allah lu neex na. yow daal xadara bi ndariñ kese nga si gis. waaw gis na ci ndariñ gis na ci lepp dal moo tax nga ci teew. waaw mu ci teew macha allah. yalla yàlla ba yaangi ñaan. waaw ma ngi ñaan bu baax. yalla yalla nangu ñaan. amin amin amin からも。